benn da doon njaaloo ak keneen koo xam ne ci ab société am lay liggéeyee bu tudd Ndiasse Diouf yéen a kaay gi ne na opérateur nga xam ne moo dëkk Maris daal di tuumaal jabarama nee na nag jabaram ji daal ak ñii maanaam ci hôtel yi la ñu doon nekk maanaam di bëggee ba tey ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na en tout cas li am ba des daal jokkalante yi nga xam ne moo am diggante jabaru opérateur bi ak dëkkandoom bi maanaam doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maara détail yi waaye nag ki nga xam ne mooy Moustapha Kome mi ñu tuumaal ne da doon njaaloo ak jabar jabaru jàmboro niki démb ca tribunal ba daf koo daal di ba tëdd sa naaj waa journal bi nee na juróomi fan ci weeru avril la lépp di leer yéen a kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li ba des sàll ak li leer ba leer mooy fan yii nga xam ne moom la ñu ma la wala weer yi ñu dëg ma la maanaam bu dundi gi yokkee ba maara day taal bu mu bett kenn li nga xam ne nag mooy ceeb ceeb liñ koy jëfandikoo ci réew mi bëri na loola waaye ci mi bëri na loola bay boo nag ñu xool lu remplacer ceeb ak lu remplacer mburu yéen a xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam listu benn bokk yaakaar ci ndakaaro na kan moo koy jiite loolee nag samp laaj la est-ce que Amadou Ba dina jël risque di jiite listu benn bokk yaakaar ci département bu Dakar gii ndax xam ngeen ne nag Dakar benn bokk yaakaar dañ ko fee raye woon ci élection locale yi raw gu métti goo xam ne toll na ci quatre-vingt-douze mille fois loolee la ko yeewu askan wi raye woon nag loolee ana kan mooy jël risque moo ko mën a complété ci élection législative yi yéen local yi am ba a kaay la danger la Macky Sall def li nga xam ne mooy ab remaniement fii ak élection législative yi Macky bu fi defee ab remaniement rek yàqu maanaam xaju fi yéen a gi di Vox Populi nee na lu jëm ci wàllum parrainage bi daan nañu nag taxawal mbir yi nee nañu nag liste benn bu nekk gën gaa yaa yées di nga am lu toll ci trente quatre mille cinq cent quatre vingt signature gën gaa bëri nag di nga am lu toll ci cinquante sept mille cent vingt sept signature yéene kaay gi di libération xëy ci bateau engrais bi ñu njortu ne dañu ko détourné ci port bu Ndakaaru am na ko ñuy wax Mamadou Lamine Ngom mi nga xam ne mooy directeur général bu Amine Group kooke nag ñaari mandat d'arrêt maanaam la ñu ko yan ci ak ndoddam fu ñu ko fekk daal di ko yeew indi ki nga xam ne nag mooy Amadou Sy kooke nag ab mandat de mener te soo moytuwulee ci ab mandat d'arrêt sax lay mujjee ndax nee nañu jamono ji ma nga ca diwaanu Mali yéen kaay gi de l'Observateur nee na lu jëm ci wàllum bateau engrais bii nga xamante ni moom la ñuy wax ne dañu ko détourné ci port bu Ndakaaru koppar ya toll ci trois milliards yu fekk neuf cent millions Aziz Ndiaye mii nga xamante ni tudd nañ ko si te mu nekk ab promoteuru lamb Aziz Ndiaye moom nag convoqué nañ ko tey jii la ñu convoqué Aziz Ndiaye waa sûreté urbaine ñoo ko convoqué yéen kaay gi de Les Échos wax ci trafic passeport diplomatique yi journal bi nee na Boubacar Biaye ak Mamadou Seck leen at te ak ñi nga xam ne ñoo ci laale fukki fan ak juróom ñaara ci weeru mars bii nga xam ne moom la ñu ma la ci tribunalum Dakar yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ci xëlim ak Assane Samb nee na guerre bi ger bi amul Ukraine kese de maanaam ci biir néegu sëy sax ger dafa ama ndax nag ci atum 2021 bi lu toll ci 1500 divorce am na si daal maanaam li nga xam ne daal moom la ñu nemmeeku li ñu gis lu toll si junni ak juróomi téeméer ci ay sëy yoo xam ne tas na ci atum 2021 bi mooy yi nga xam ne rek moom la ñu xama yéen kaay gi las sa na journaliste yu jigéen yi jamono ji nag ñoo ngi jël pouvoir bi ci organe de presse yi ndax nag ñoo ngi leen di cëral bu baax a baax yéene kaay gi di libération ñu koy fekk fa Ousmane Sonko nee na nag juróom-ñetti fan ci weeru mars la ñu ko libéré moom Ousmane Sonko ci mbiri Adji Sarr waaye tamit Ousmane Sonko nee na dafa am lu ko boole ak 8 mars ndax nee na am na doomam boo xam ne juróom-ñetti fan ci weeru mars lu juddu moom Ousmane Sonko mooy nettali ci l'Observateur ak Vox Populi waaye na li nga xam ne